jërë ngeen jëf mbokk yi mu ngi noonu alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV indiwaat naa beneen jàmbaaru seex Seydi El Hadji Malick Sy xool leen li mu def xool leen lu rëy li mu def ci gàmmuk Seydina Muhammad bi sallallahu alayhi wa sallam waaye di wane ne nag Seydi El Hadji Malick am na ay jàmbaar muy waali fay mu ngi noonu ñu ngi koy ñaanal li mu mën ren bu déwénee yàlla defal ko mu mën ay milliards yi milliards yi milliards ci barke kër bu seer a seer a seer jënd ci Tiwaawan def fa alal ju baree baree bari gàmmu gi nag mu jëli traiteur yi gën a seer ci ndakaaru indi leen Tiwaawan ngir lan teral ci gani Sidina Muhammad gani Cheikh Sidi Haj Malick Si waaw góore waay Waly Faye ñu ngi lay ñaanal ci barke yonent bi sagal nga waa kër Sidi Haj Malick sagal nga njaboot Sidi Haj Malick yi ñu ngi lay ñaanal fay yal na yàlla guddal sa fanta may la wér te yokk sa teraanga ndax nag tabarakallahu ñama fa fekk di leen interroger ñoo wax ni li gën a neex ci si jikko mooy da nga leen di defal teraanga te doo wane ni da ngaa beew doo wane ni da ngaa réew doo wane ni yaay borom alal wax nañ ni ku ñëw ci biir kër gi xool munoo xam kan nga xamante ni mooy def teraanga ndax sa yar ndax sa mbaax ndax sa teraanga mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu gàmmu Tiwaawan gi fii la ko taalibe Seydi Hadji Malick yóbbu niveau bi xool leen li mbokk yi xool leen lii lii bu njëkk fan nga ko daan gis da dem ndakaaru yor sa 500000 mbaa nga yor sa 1 million dugg ci restaurant yi gën a mag taalibe Seydi Hadji Malick yi dem ndakaaru xool restaurant yi fa gën a mag ñu jëli leen indi leen fii ci gàmmu Tiwaawan bu Seydi Hadji Malick bi ngir lan wanekat ni Seydi Hadji Malick njàmbaar ga mu ñaanoon sunu borom yàlla defal na ko mbokk yi mi ngi noonu Waly Faye sunu xarit Waly fay sunu doomu ndey Waly fay taalibe si alxaaji Malick bu mag bi lii la def mbokk yi alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV dama wër ba sonn ngir wane taalibe si alxaaji Malick waaye jotuma woon ak si fii ci wàll ndekete Waly lii la def mbokk yi gis ngeen ko mu noonu lii la Waly Faye def sama mbokk moomu nga xamante ni ñoo seexandoo Makka tabarakallahu noonu la def fépp fu jullitu yàlla nekk Waly invité na la nga ñëw ci gàmmu Tiwaawan fépp foo xamante ni taalibi Seex Alxaaj Malik nekk na fa waale invité na la nga ñëw Tiwaawan dal ak moom mu dalay berndeel di la berndeel ba nga ñibbiwaat mu jox làmb poosam jox la paas ay waali ay waali Seex Alxaaj Malik bég na ci yow ay waali Seex Sidi Abubakar Si baax na ci yow ay waali Seex Xaaj Mansour bëgg na ci yow Seex Xaaj Abdul bëgg bëgg na ci yow Serigne Babacar Sy Mouhamadunil Mansour xalif général Tidiane bëgg na ci yow ñu ngi lay ñaanal ci barki Seydi Mouhamadou Moustapha Sy Jamil sa buntu ci kër Seex Seydi Xaaj Malick yàlla bu la ci kenn ëppale waa kër Serigne Moustapha Sy Jamil yëpp waxtaan na ak ñoom ñu wax ni lépp loo